asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu message bi maa ngi koy def jëmee ko ci àdduna bi yëpp euh, xam naa ni xale yi toogee nag bu kenn wax ne takkuñu masque ndax ñoom ci seen wàllu bopp waa daara ji la ñoo nekk bokk dëkkandoo ci daara ji te daara ji ñi fi nekk amul wër di yalwaan loolu laay njëkk leeral. dog yi ñuy def bi mbas gi tàmbalee ba léegi daara ji nga xam ne jàkk ji ñu toog ñu ngi ko tuddee masjidu rasul deux étages la daara ji daara yi Sidi Hadj Malick la ko sëriñ Abdoul Aziz Al Amin tuddee woon foofu lañ nekk tey maa ngi toog ak waa daara ji di def message bi di ko jëmee ci képp koo xam ne bëgg nga daara bëgg nga alquran ñu tudd la ci alquran ci waxin maanaam ci turu lislaam ñu tudd la ci te boo génnee àdduna ñu di la ñaanalee ci turu lislaam message boobu maa ngi ko jëmale ci ñoom ci journée dog nationale bu ñu bëgg def suba muy la 31 ñuy ñaan képp koo xam ne mbokk taalibe nga gëm nga alquran bu subaak jàmm na ñëpp dajale xale yi na ñëpp yor njàpp dog yi ñuy joxe ñu joxe ko dog nag ñim sible mooy ñi jug ngir bëgg a tas daara dog ñooñu rek la ciblé yàlla xañ leen jàmm ñoom ci seen bopp ba dootuñ amati jàmm ci seen wér gi yaram ba ci jaww ji sax bu neexati ci ñoom làqatuwuñu nëbbatuwuñu tey dund ak tumuranke ci alquran dee dem àjjana moo ñu gënal ñuy dund liggs boo xam ne boo dee safara nga jëf sunuy maam ba ci sunuy maamaat maam ma Laamin Saar ci biir daaray alxuraanam lañ ko reyee ci caaren jama ji ci dëkk yi nga xam ne ci biir Sénégal buur du fa dugg dëkk yooyu ci la bokk kon ñun alxuraan lañ doon milliard milliard seesu président bi ci gàttal sunu daaree alxuraan ji moo ñu ko gënal xanaa leer na doogi ko ñim sible mooy ñi jug di dem di bundu sëriñu daara yi nañ leen ko yéene balaa weer ñu xool te ñu bañ a daggal ñaani ñu def rek dimanche bu ne dog national ñu jëmee ko ci daara yi ndax nag mbokk yi c'est tout lu ëpp tuur bit si réew mi soo wuñ ci daara kon kay ñi jiite réew mi seen yoon war ta nekk ci daara ndax bu fekkoon ne yéen dangeen ngeen a génnee budget jëmee ko ci daara defuñ ko ci wala ñañ koy jox di ko lekk génnee xale yi di yalwaan ngeen sañ a di jàpp xale yi di tëj ak di sëriñ daara yi waaye yéen da ngeen dañuy tukki dund ci réew mi am sañ-sañ ci réew mi ngeen génnee ñu ci réew mi ba noppi ne da ñu àtte ci réew mi ñun ay doxandéem lañ. coopérative ni ñëpp di fal sañ wate ni ñëpp te ñun ñooy fal ma defaale occasion waxaale nitu daara yi ak ñi gëm alquran gis nga deux mille vingt quatre bii nañ ko waajal buñ làqatu nañ wate contour képp koo xam ne yaa ngi ñuy teg bundu xataal yaa ngi ñuy bundu nañ wate contour sa parti bala fay kenn falati na wax ak daara leer loolu nañ ko ci boole beneen bi ñiy def doog yi maa ngi sàkkuwaale ci ñoom nañ yéene waale bépp sër koo xam ne mu ngi tuddoo sëriñ daara jaar ci suuf di dem ci ñiy def daara di lënkaloo ak ñoom nañ leen yéene ci dog yi dog bi daal képp kuy kompaloo kontu daara nañ leen yéene ci dog loolu mooy ñaan bi bu ko defee maa ngi sàkkuwaale mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo gëm daara ñu àndandoo doon benn bloc di xeex di yëkkateendoo di tëralandoo ñii xeex taalibe yi dem di laaj seen sarax taxu leen a de man daara jii ma amul yàlla xale yi ma toogandool ñi ci ëpp am na ci ñoo xam ne seen waajur dunduñu sama daara la nekk ndékki añ reer amul fay ñii nekk ci daara ji ñii ma gis kenn du fay ci ñoom naa lu ma man a yor yamale naa ko ci ñu ngi leen yoral seen dund te gisuñu état demandé wuñ ko it demandé wuñ ne nañ ñu dimbale de man man boobu man personnellement daara ji ne na ma état dimbale man demandé wu ma ko biñ tàmbalee di def wàllu ndimbal ci corona bi bi mu xewee ñu contacté ma ne ma dañ la bëgg a indil ceeb dama ne jéggale naa lii may wax fii jiw laa dama ne leen jéggal naa leen. yittewuma ci ci sama daara dem leen seet ñeneen ñu ko yittewoo nga jox ngeen jox leen kon ñun ba fii may wax ak yow tey may def vidéo bi nii di samedi la. trent la 30 lan. janvier la 30 janvier. 2021 2021 tey tey demandé wu ma ndimbal ci état yittewuma ko. Mhm. biñ yee fi fépp oust bàyyi oustaz ñu andi la ceeb bi ñi ko soxla sa koñ nga jox leen ko dama ne leen. dem leen ngeen joxal leen ko sama man séddale wu ma ndax du man ngeen fay pour ma séddale leen seen ceeb daf ñi ngeen fay dañ leen séddale leen seen man ba léegi demandé wu ma ne na ma état jox dara ma jot a am ku jël dërëm ngi nii toog ki yor daara ji daara ji ma yor nee naa amul ñun jàmm ji ñuy sàmm bi bi feebar bi tàmbalee senegal ba léegi léegi léegi lañ pare dog yi ñu doon def gannaaw tisbaar ak gannaaw timis gu nekk ay junne ci ay dog nañ ko def fii ñaan daara ji danañ dajaloo def ñaan ci réew mi ba léegi tamit ñaanu jàmm yooju ci réew mi dañ koy ñaan de réew mi moom na am jàmm ñi yéene daara jàmm nañ am jàmm ñu pexeelu daara nañ am jàmm waaye ñu def coalition ngir tas daara ak kuñ lënkalool nag yàlla na yàlla dajale néegu problème dugal la ci nga di ko dund ci sa wér gi yaram di ko dund ci sa àll ba ci jaww ji yàlla na ko yàlla poson ci sa kaw yéen seen parti politique yi ngeen nekk nga xam ne utam àdduna rek moo leen yitteel moo leen jaral lu nekk na ñun ñu nekk ci coalition ànd dooleel yàlla coalition ànd dooleel yonent yàlla Muhammad ñun ñi ci bokk rawatina ñun ragaluñu daay ñu ma defaale occasion waxaale bi gis ngeen danaa sant Oustaz Makhtar Sarr sama rakk la waaye dañ koy bëggee te yàlla tax man li may wax bakkan lalu ko yàllaa ko lal lii muy xeex ñim àndal sax xamuñu ko am na ñum àndal di xeex xamuñu loolu convoqué nañ ko fi dig dig ngir bundu xataal ko xatal ko tey la gën a déterminé bi mu ci génnee biñ ko ooyee laaj ko posé ko ay questions bi mu ci génnee daf ma waatal ne ma sëñ Fata ma ne ko la bekk mu ne ma yëg-yëg bi ma am dafa mel ni président moo doon recevoir te na xelam di dalee toog wax ak ñoom tontu leen dem yëg-yëg boobu laa am ministre bi Ndeye Saly Diop amut nu mu deful pour recevoir Oustaz Makhtar jaaree na ko fu nekk Oustaz Makhtar ne du ma toog ak Ndeye Saly Diop du toog ak moom aw ma moom man miy demandé ne na fi Ndeye Saly Diop ko du ma toog ak Ndeye Saly te liñ bëgg xam nañ ko mooy woola ci suuf ñun ñun xam nañ yow ni nga déterminé waaw yow ku baax nga nga ñëw ñu recevoir la neexal la benn un million nga dem toog ci ruq gis nga ñun alxuraan nañu gëlal xaalis xaalis loo ci mënti am day jeex yàlla moo dul jeex te xam nañ nag ku yàlla teral nooy mel bu la yàlla teralee loo songu mu daanu ku la songu daanu ñun teraanga yàlla la ñuy ut in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu